يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد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 di leen dalalaat ci jataay yi nga xam mu assasatul wafaa bi xuquuqil iman mo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi ba tey jii di fukkeelu fan bi ak benn ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk moo xam ne du gan ci jataay bi ndax njëkkoon nañ ko fee dalal mu waxtaane ben wàll ci lu jëm ci lii mu fas yéene waxtaane ñun tey muy sëriñ Abdullahi Jaxate bàyyi ko ba Louga fas yéene ànd ñun tey jataay bi ci lu ñu tuddee al waqf te mooy maanaam njariñul waqf ci lislaam te mooy te muy jëf ju am solo ju mat a bàyyi xel jëf joo xam ne mën nañoo wax ne nit ki wala jullit bi jëful lu ko ëpp njariñ ci moom ndax loo xamante ne boo ko defee njariñ la du dagg ba faw te fam faw fam fa nga nekk bu ëllëgee ci yomal xiyam bi la koy fekk loolu yaakaar naa ne nit deful lu ko ëpp njariñ ci moom loolu kon tomb la bu mat a waxtaane insha allah sëriñ abdoulaye jaxate ci tomb boobu la ñuy fas yéenee dikki tey wala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf rek ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàng mu alquraanu karim fii ci Louga waaye nag tàmbulee ko tamit njàngum xam-xamam dugg ci daara yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci Louga ñu mën cee tudd madrasatu manaril huda bi nga xamante ne ñu baree bari jaar nañ fa mu jàng ci école yi ba ci école yooyu la amee certificat d'études primaire amee fa tamit brevet de fin d'études amee fa tamit baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat nag la bàyyi ko fii ci réew mi dem ca fële ca Maroc dugg ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatu sharia wal xanuun mu nekk fële ca fas ci Maroc foofee la jànge ba amee fa ijaaza te mooy licence waaye yemu ci loolu mu continuer duggaat ci beneen université bu ñuy wax université Sidi Mohammed bin Abdullah foofee la jànge ba amee fa maîtrise ci wàllu fiqhul muamalat al maliya muy jëflante ci wàllu alal ci wàllu fiq kon maîtrise am moom la am foofu ci université boobu noonu waaye taxul mu doy loolu ba tey dafa continuer inscrire wu ci moftabarul iqtisaad al yi ngir def doctorat ba yàlla baax ko mu am doctorat ci wàllu الفقه والاقتصاد الاسلامي موي فقه اك ايكونومي اسلامي كون ياكانا ني بون كو naa ne buñ ko tànnee ngir waxtaanloo ko وقف wàllu waqf te waqf buñ ko alal jo xamantene wala lo xamne nit ki da koy bàyyi ngir nit ñi diko ko ginaawam su ko defé yool ba diko fekk famu nek nekk loolu yaakaar naa ne dana ci mëna wax te bi mu ñibu sé sax fi ci réew mi ci walu boobu rek la nek di ci yëngutu ndax moom jàngalekat la ci wàllu finance islamique waaye nag formateur la tamit teg ci consultant la tamit teg ci lépp ci wàllu googu nga xamante ne mooy lu jëm ci wàllu finance islamique ba yàlla baaxe ko ñu tànn ko mu nekk ki nga xamante ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu yoon ak jëflante ci kuréel gi mën a gën a mag wala gi gën a kawe ci wàllu waqfu ci Sénégal muy responsable juridique et du partenariat de la haute autorité du waqf Sénégal mas'oul suun al khanouniya wa taawun fi hay'ati al ulya lil awqaaf Sénégal kon moom mooy responsable bi nga xamante ne mooy saytu wàll boobu noonu ci wàllu waqf kon yaakaar naa ne buñ ko tànnee ngir jox ko tomb bii nii mu waxtaan ci yox nañ ko loo xamante ne incha allah buñ ko mayee xel yaakaar naa ne gis na jariñu ci lii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngal ko

ñu bàyyi xel ne Darou Mouhty FM mi ngi en direct ak ñun ba tey tamit bokk na ci yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan wi bu dee ci rajo yi Jant bi FM wala ICAP FM euh, RTS Touba Beno FM ak Lamp Fall FM ak RFM bu Mbàkke ak Zig FM ak i rajo Bawal Média ak Sud FM ak Walfajri ak Leer gi FM bu Louga. ak Fawzi FM yii yëpp rajo yi yëpp ku ñuy topp rek incha allah da nga mën a ànd ak ñun ci waxtaan yii ba tey bu fekkente ne ci site internet yi la maanaam ñi nga xamante ne ñoo koy def en direct ci waxtu wi ñuy wax ak yéen Bawal Média mi ngi en direct ak ñun ba tey euh, As-Samadiyya As-Samadiyya groupe média mi ngi en direct ak ñun Bichri TV ak Touba Vision ak alxadimiya xibaaru réew mi ak alwafa daaru officiel kon béréb yooyu yëpp ku ci dugg rek da nga ma ànd ak ñun en direct ci waxtaan wi moo xam ci facebook bi la moo xam ci youtube bi la ba tey tamit bokk na ci ñi nga xamante ne danañu jàllale waxtaan wi yëgle yëgle tv moom 12 heures la koy jàllale alxusna ba tey bokk na ci ñi koy jàllale cheikh ibrafal point com xisbu rahman ak rafa tv ak Mouhalim info ak euh, Touba TV ak Lamp Fall TV kon jumtuk yooyu noonu béréb yooyu noonu ku ci jox jokkoo rek ku ku ca nekk rek da nga mën a am ñun waxtaan yi kon xam naa ne li ñuy def mooy dañuy jox kàddu gi Sëriñ Abdoulaye Jaxate ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk jullit ñi ñu leen di nuyu. di leen ziyaara ci bis bu tedd bi ci bërëb bu tedd bi ak ci waxtu tedd wi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy Cheikh Abdou Samad Mbakke bi nga xam ne mooy imaam bërëb bu tedd bi jottali ñu ko ci loxo yi ki fi teewal borom daaru muy sëriñ Bachirou Anta ak mbooleem kilifa yi nekk ci daru daru mooti di gërëm bu baax mbokk yi nga xamante ne depuis fan yi yëpp ñu ngi jokkoo rawatina sëñ sëñ Cheikh na Mbacke Hamza di ko sant bu baax ci taxawaayam ci xiram ci bëggam lu baax wax dëgg yàlla taxawaay bu am solo boo xamante ne ni jàppanal na ko autorité di waqf ci activité yi nga xamante ne ni Al koy taxawal ci weeru koor gi fii ci Darou Mouhty di sant bu baax sama wëllëre koo xam ne yàlla dogal na xëy na ñoo nekkandoo woon Louga muy sëñ Modou Mbacke di jàngandoo woon fa muy sama wëllëre bu baax di ko sant di sant Serigne Kara Diop xam ne yàlla dogal na xëy na ñoo ngi nekk tuut tànk sax jànguñu ci moom waaye. xamoon nañ ko bu baax ci taxawaay bu mu amoon rawatina ci fànn woo xam ne maîtrise ko woon na ko lool lool muy almul faraid di miraas yàlla na ko yàlla sàmm euh, taxawal ko may ko wére nag ak tal ba euh, mission bi nga xam ne mu ngi koy taxaw ci liggéey boroom daaru yàlla defal ko ci ndam defal ko ci tawfiix di gërëm mbokk yëpp ñoom sëñ Mouhamad vraiment organisation bu am solo lañ fi gis depuis activité bi di waaj a ñëw ba gis na ki tey maa ngi ànd ak euh, Serigne Elimane Lo mi nga xamante ne mooy yore lépp lu jëm ci wàllu communication ci haute autorité di wax di ànd ak euh, ku naan suñu mbokk mu naan Mbagnick Sidibé mi nga xam ne euh, dem beeg dikk bi moo ñu ko jàppandal ñooñu lañ àndal lu jógee ba dakaar ñëw ci turu autorité di wax. yalla dogalon tem bi nga xamantene ne won nañ ko aborder tay mu jëm ci walu waqf yoonal giñ ko yonal senegal ak laytaay giñ ko laytaayale ba jëmmal ko taxawal ab bankas bo xamantene ni lepp lu jëm ci walu wowo mom mokay koy taxawu ci senegal di wax ci turu institution boobu noonu incha allah waxit ci liñ naan cadre juridique mooy li ko laytaanale ci waqf ci wàllu yoon ak institution wala bërëb bi nga xamante ne moom moo koy saytu lan moo ko tax a jóg lan mooy ay mission ni ñu ko bëgg a waxtaane nag incha allah danañ taxaw tuuti ci tomb wax ndax mbokk yu bari fii réere wuñ ko umpale wuñ ko ku ne xam nañ taxawaay waqf yu demee noonu waaye dees na ci boros fasiyene yéene waxtaane it waqf ci senegal démb ak tay loolu bëgg nañ ci taxaw ci ay tomb taxawit ci lan moo waral Senegal taxawal ab bànqaas boo xamanteni ni nii moo yore mooy yore wàllu waqf bànqaas boobu lan mooy ay mission lan moo ko tax a ak li nga xamanteni ni loi qanun bi nga xamanteni ni ci wàllu waqf ci senegal amaloon nañ ko depuis 2015 voté woon nañ ko ba fii may waxee yow mi ngi dem xaanuñ boobu wax euh, loi boobu lan la ëmb dëgg-dëgg lan moo ko tax a jug ak fan la jaar ak nan lañ def ba taxawal bànqaas boobu noonu ak tey jii ki nga xamante ne am na yéenay def wax fan lay aw nan la koy defee ci yan procédure ci yan formalité waxit aussi xeetu wax fii nga xam ne am na taxaw ci waqf boo xamante ne nii al waqf dii lañ koy tuddee ndax liñ gënoon a xam mooy aqaar ci tabax loo xam ne see saabit la waaye ni fiqhul islaam yi di di doxe ñu dem ba gis xeetu waqf yu bees danañ ci taxaw waaye bi ñuy gën a taxaw mooy li ñu tuddee waqf public rawatina fonds waqf public monétaire boo xamante ne nii haute autorité di waqf da koo taxawal kon waxtaan wi incha allah ci tomb yooyu lañ ko bëgg euh, euh, waxtaane bu ñu nee waqf nag ku ne xam na ne baatu waqf baatu arab la waaye tey boo gisee am na réew yu bari foo mel ne Maroc boo demee xabus lañuy wax ndax xadis ba la yenn saa sallam waxoon Omar ibn Xattaab ba mu ñëwee dal ci tool bu am valeur ñoo ko lii de bokk na ci li gën a riche ci sama alal lu ma am yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xabbisil asla wa sabbil samarata mu daan ne ko foofu la baatu xabus bi jóge moo tax marocain yi ñoom xab xabus la ñuy wax mais bu dee yeneen dëkk yi ci àdduna bi ci àll monde islamique bi waqf awqaaf la ñuy wax moo tax ngeen dégg ay mini wasaaratul awqaaf ministère des awqaaf mais bu dee Maroc moom xabus la ñuy wax. même bu dee yeneen dëkk yi sax fu mel ne Malaisie wakaf la ñuy wax Indonésie wakaf la ñuy wax ñoom jublu ci waqf bu dee Turquie waqif ndax xeet wu nekk na koy woowe waaye la muy wundu lenn la eh, ci loolu lañ bëgg a dikk lan mooy waqf buñ xoolee xadis bi nga xamante ne nii yenn saa sallam wax na ko ne xabbisil asla al asl wa sabbil thamara ay ijaali samarata fi sabilillah mooy ne xabbisil asla taxawalal asl bi cosaan li jëmm ji taxawal ko xam nga waqf ci arab waqafa mooy taxaw kon waqf mooy taxawal dara mel ni fixse dara kon waqf mbir la moo xam ne dañ koy samp taxawal ko dëgëral ko sàmm ko wattu ko ba mën a wéy mën a sax waaye lu mu ca teg wa sabbili samara ay euh, meññin mi li muy jariñ def ko fi sabilillah kon waqf mbir la moo xam ne danga koy samp mu taxaw nga ñaan yàlla mu wéy ba faw njariñ li di xéewal gi di wéy nit ñi di ci jariñu askan wi di ci jariñu jaamu yàlla yi di ci jariñu xeet wi di ci jariñu kon lan moo tàqale waqf ak sarax ku ne xam ne ne sarax nit ki da koy jël def ko nit ki consommé ko lekk ko wala mu jariñoo ko ca saasa mu jeex waaye waqf nag jëmm ja dafay des waaye meññit ma ngay saraxe kon waqf mooy taxawal loo xam ne dangay taxawal jëmm ji sàmm jëmm ji waaye dangay saraxe meññin mi kon waqf ba tey wute naa ak zakat ndax azaka farata la ci sa alal waaye waqf kon day mel ne naafila la la ci sa alal kon xeet loolu mat a tàqale la kon waqf ak sarax am nañu wute bu baax a baax a baax léegi nag ci ci xere teg euh, suñ boroom ak euh, diine suñ boroom ji nga xamante ni nii suñ yiw la ci àdduna ak ci àllaaxira yenent bi sallallahu alayhi wa jullit ñi dañoo amoon jafe-jafey ndox ca Madina jafe-jafey ndox bu méttee méttee métti léegi nag yàlla dogal yahud yi ku ne xam na seen doole jamono jooju noonu mun naa wax ne ñoo li gënoon a am solo daal ñoo ci teg loxo am ci yahud boo xam ne da ci daan xaw a xor ñoo ñoo jullit ñi daan leen xaw indil ay jafe-jafe ci e, mën a am accès ci ndox moomu noonu os bi sallallahu alayhi daan ne saxaaba yi ngir xiirtal leen ci lu baax pour ñu def lu baax man yashtari bi'ru Roma ana kan ci yéen mooy jënd bi'ru Roma parce que teen ba jamono yooyu noonu ndox ma dafa neexoon ba pare mënoon a amoon njariñ lool yenn saa sallam ngir soññ ci saxaaba yi mu ne kan moo koy jënd ngir am sama ngërëm Seydina Ousmane daal di ñëw proposé ko ki nga xam ne euh, moom moom moomoon teen ba ne ko kër dama ko jënd donte sax am na lu am solo nu ci doxalee moom ndax waa di ci début bi da doon xaw a indi jafe-jafe mu leen koy luyee tey bu subaa moom mu continuer di jaay ndoxam mu gis ne moment bi nga xam ne moom la ko jullit ñi di luyee jullit ñi dañ ciy profité root leen bëgg moom bis ba nga xamante ni nii moom day bëgg a jaay du gis kenn mu dem nag ba ca mujjantal ga mu far ko jaay Seydina Ousmane bi mu ko ko jaayee jullit ñi di ci jariñu ci côté bi noonu ay garabi tàndarma di fa sax loolu di continuer ba ci dawlal Ousmaniye bi mu dikkee ay siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu sàmm ko ba fi may wax ak yow waqf boobu ma ngay continuer bi daw la Osmaan la jóge fee état yi nga xam ne euh, ci Arabie Saoudite ñëw na ñooñu it wattu ko sàmm ko bu baax a baax a baax baax ba fii may wax ak yow dañ naan Seydina Osmaan am na compte bancaire ndax waqfam boobu noonu euh, bi ñuy wéy ba fii may waxee ak am na ci hôtelu cinq étoiles sax buñ ci tabax waqf bi ñu ngi naan mi ngi toll ci 10 km ci xaram bi yooyu noonu la ko yenn borom xam-xam lam doon jur ci meññit ci tandarma ci ay yiw loolu ñi koy jël lenn li ñi koy sar way néew di doole li ci des ñi koy jël doon ci investir di ko gën a dooleel parce que waqf dafa am ay xasaais dafa am ay melo mooy lan dafa war a continuer dafa war a am istibraariya ak day mooma moo tax borom xam-xam yi ci fiq ci wàllu waqf dañuy insister bu baax a baax a baax almaalul alal ji nga xam ne nekk na waqf ñu koy sàmm di ko saytu ba nga xamante ne même buy génne dara na am loo xam ne dana duggaat ngir que ngir jëmm ji taxaw ngir mbir mi mën a baax mën a mucc ay loolu waqf Seydina Ousmane boobu noonu yàlla defal ko taw tawfiq ba fii may wax ak yow moom dañ si Seydina Ousmane am na compte bancaire fi mu toll nii hôtelu cinq étoiles ñu ngi ko def ci xaram bi gannaaw yàlla ci waqf boobu lañ ko def muy jur ay xéewal di jur ay wéy kon loolu nit tëdd fa tëdd dëdd àdduna ay fil de quatorze siècle ay yiwam di continuer loolu tawfiixu suñu borom gu rëy rëy ndax dañoo nekk ci kaw suuf di dund amaana bëri ay rëcc rëcc ndax liñ naan barzaq am na sax ñoo xam ne danañ dem ba jeexal fi yooyu yëpp nit ki nag fa mu tëdd sa yiw di wéy toujours loolu dara da koo gënul dara da koo dàqut moo tax mu nekk xeetu jaamu yàlla ci lislaam boo xamante ne nii nit ki payuk suñ borom bu rëy rëy rëy ma ko cay xaar ëllëg waaye fii ci àdduna yit nu mu ciy jariñoo léegi nag jamono di dox ñu gis ne at yu mujj yi ba ci sax ci l'histoire ku ne gis ne ne waqf amoon na solo ndax borom xam-xam yi nee nañ amul benn am na benn saxaabi bu doon wax naan amul benn saxaabi bu deful waqf saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñépp a ko def Zubayr ñi jël ci kenn rek ku mel ne su ma juumul Zubayr mu laaw damay fàtte dana bañ a kii moom ndeysaan defoon na benn waxtu boo xamante ne da koo def ngir doomu yu jigéen bi ku ci sa say naqar nga dem amatoo foo dugg da koo def uniquement pour ñooñu ak yeneen xeetu waqf yoo xamante ne saxaaba yi am na ñoo xam ne sax dañ daan waqf seen i jaasi seen i der lépp loo xam ne am nañ ko ci njumtuwaay mën a xam ne lii kët luy jariñe ba pare yool mën nañ ko cee séentu dañ ko daan def waqf jamono di dox di dox ba imaam Malik ci atum téeméer ak juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent ci hijjire yee la génn àdduna mu gis ne comme ma nga woon ca Médine saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa ñu defoon lu ci bëri dafa naax saay kenn mënatu cee tëj bët kenn mënatu cee toj loxo mu koy naqarlu ndeysaan ci jamono yooyu mu doon lu tiis loo xamante ni nii Euh, ni ci ni nim ni ni solo ak euh, ni ci l'islam insisté loolu am mu daw yaram mu naan ay na awqaafu saxaaba ana li li nga xam ne ci ay waqf yu saxaaba yi taxawaloon def ko ta lolo ku ne xam ne imaam xolal 179 ans rek téeméer ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar xam nga loolu du daal ñun ñoo ngi 14e siècle kon jamono yooyu mu naqarlu jamono di dox mbir mi di gën doy waar muy gën a gannaaw ñi dem nag ba doxalin bu bees dawlal osmaniya bi mu ñëwee fonk ko lool dañ naan sax raay bi nga xamante ne nii jóge na Istanbul ñëw ba Makka fu moo ko tabax ay commerçant pakistanais ay indien jullit ñoom ñoo ko financé moo tax loolu fu ma koy gisee exemple boobu sama xel day dem ci sëñ Modou Moustapha ak raay ba boo gisee bi nga xam ne tubaab bi jotewul pour defar ko moom mu ñëw ne ko kët main d'œuvre yi nii ak yitte ju mag baraay bi yegg si Jurbel moo tax loolu exemple la modèle la boo xam ne même sax ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcc ci wàllu kii PPP euh, mooy euh, lu jëm ci wàllu partenariat public privé dañ daan modèle la boo xamante ne nii référence la ndax état bu jëflanteeg ak privé ba réaliser projet bu mel noonu lu am solo la ci l'histoire kon li ñu gis ne waqf am na taxawaay bu yàgg boo xam ne amoon na ko jamono di dox ba suñu état yi gis ne njumtuwaay mu am solo la ci xeex ndóol ci fexe ba askan wi mën a dund mën a am wér-gu-yaram bu doy éducation bu baax mën a am accès ci lépp loo xam ne li ñuy tudde ay services sociaux de base mooy li nga xam ne nit ki mënu koo ñàkk tam soxla ko lool pour que dundam mën a tey mën a dal dafa am lu ñuy tuddee ci wàllu économie dañoo xaajale ñaar li ñuy tuddee secteur public ak secteur privé public wàllu état la état lépp lu loo xam ne infrastructure publique la mooy njumtuwaay la woo xamante ne nii lu mel ne tali hôpital école loolu moom lañ ko xamee waaye secteur privé ñoom dañuy dem fàggu seen i alal ay doomu aadama ñoo jug liggéey seen liggéey moomal seen bopp loolu ci ñoom lay yem léegi nag dafa am ab taxawaay bu am solo mooy lan dafa indi loo xam ne dafa diggu dóomu taxaw ci diggante li ñuy tuddee secteur public ak secteur privé moom la ñuy tuddee comme finance islamique dafa yaatu dafa am benn pàcc boo xamante ne moom la ñuy tuddee ak tamwilul ijtimaai al islami mooy la finance sociale islamique bu ñu nee finance sociale islamique ndax finance islamique wàllu banque gi ci wàllu assurance gi ci wàllu lu ñuy tuddee suuqul awraaq al maliya mooy marché des capitaux ak sanadiq al isra euh, istismariya société d'investissement islamique waaye loolu lépp ci wàllu liggéey pour am bénéfice waaye nag dafa am beneen pàcc moo la ñuy tudde ak tanwirul mooy la finance sociale islamique ci biir loolu zakaata ngi ci waqfa ngi ci xeeti ay hiba ay aariya wasaaya lu bëree bëree bëri ci lislaam ay njumtuwaay yu lislaam indi ngir nit ñi di jàppalante di dimbalante xoolal rek xikma rabbaaniya bi suñ borom am ci lan nit ki bu defee bàkkaar ci ay kafaaraam sax dañ naan ko saraxeel dara pour bàkkaar ba wàcc la ba ci ko mënta woor tey jii nii dañ dañ dañ li ñu koy génne loolu ci ñan la jëm ci miskin yi la jëm kon loolu xikma rabbaaniya la suñ borom que ne yàlla def li li aaya boobu naan nahnu qasamnaa baynahum ma'ishatahum fil hayaati dunya euh, li ci gën a am solo war a faanaa ba'dahum fawqa ba'din daraja dañoo yéege ñii astafurlah du ma ne sax dañoo yëg ñi waaye ñii dañoo am ñii xawaat ndax ni yàlla di maye yamuñu ñii dañoo am ñii tane ñii xaw a digg doomu ñii suufu waaye lu ca aaya ba teg ci gannaaw wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmauna kon yàlla dañuy woote dañuy wool ci lan ci yërmaane ci jàppante dafa am benn xadis boo xamante ne nii dafa dafa daw yaram eh, mooy fi yàlla di waxee Euh, yaa abdi maridtu falam tazurni xadis qudsi la wa joxtu falam tut'imni yàlla dafa taxaw da day mel na koy communiquer ak jaan bi naan ko mën de damaa feebar te seet si wóoma damaa xiif te joxoo ma te taleeloo muy muy muy muy lu yéeme waaye li ci suñu borom jublu mooy yàlla danaan la dala dalay woo ci nga def lu baax ngir nga am yoon bu mel ne ne boo demee fekk jaam bu tawat feebar boo ko seetee day mel na yow seet nga suñu borom boo fekkee ku soxla ñi leel ko nga leel ko mel na ne leel nga suñu borom ci waxin moo tax dañ naan ci ci ci ci ci ci ci lislaam ngir nga am yoon ana li deug pour nga nek ku égoïste deug deug deug deug deug moy nga jariñ sa moroomu jullit ndax ego nga jariñ sa morom mo lay may nga am yoonu euh dafa am benn borom xam-xam da koo tëggee nu yéeme euh, nu koy da nan am jullit deug deug deug bala mo égoïste deug deug égoïste ci l'islam du rem lo xamné yow dang koy def mu yam ci sa bokk waaye égoïste dëgg dëgg dëgg dëgg ci lislaam mooy ngay gestu ñi nga xam ne seen loxo jotul ndax gestu ga nga leen di gestu moom moo lay may nga am yiw am yool bu rëy rëy rëy rëy moo tax ñu naan an takuna ananiyan min xilaali nafil aharin c'est-à-dire dangay jariñ gi ngay jariñ doomu aadama yi moom mooy tax yow nga égoïste nga bëgg sa bopp bëgg sa bopp gi mooy loolu moo lay mën a may texe àdduna ak àllaaxira kon xolal loolu suñ borom kon dafa tëggee société bi noo xamante ne nit ñi dañoo war di gestonte rabbonte war di jàppalante kenn war ta xiif ndax dañ naan ku xiif ki am te mën koo jàppale responsabilité am na ko ci xas Hazm dafa dem ba ba ba dépassé ay limite ba ne moom ñi am buñ joxul ñi amut ñi amul am nañ droit jël jaasi xas Hazm ndax ku ne am na xam ne Ibn Hazm ci ay mawaqif ci wàllu fiqa bi demee noonu pour ne la rek lislaam fonk na kon solidarité alal ji ñëw ci àdduna nii ñun moomuñu ko wa anfiqu mimma jaalakum lu alxuraan wax mustaxlafina fii kon ñun xalifatullahi fil ard lañ kon yàlla lii dañu koo dénk kon nit bu la dénkee danga koy sàmmal danga ko bëgge da lay won na nga nan nga koy wute nooy fàggoo boo bëggee produire noo koy defe lan ngay sàmmoonteel lan nga war a moytu ci lum tere te boo amee it fan nga ko war a def nan nga ko war a def lan moo cay farata ak lan nga ci mën a jariñ kon lislaam dafa mel ni ab chaîne de valeur boo xam ne ci bi ngay wut ba ni ngay joxe loolu lépp dafa am num la ci orienté léegi nag wàllu solidarité loolu dañ ko bëggoon a laytaay la waxtaan wi pour waree importance bi nga xamante ne nii fa am na ko te jamonoy tey dem ba nga xam ne état yu dul jullit sax tey jox ko importance ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dafa nekk ci li ñu tudde ay politique sociale ci njumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy xeexa ndóol yi nga xam ne moom mooy tax nit ñi mën a am dund gu dal dund gu tey dañ naan waqf ci histoire ci démb dafa am benn mu arrix benn si benn euh, historien boo xam ne turc la dana waqf ci ci histoire fexe na ba nit di ganee àdduna ci dispensaire boo xam ne fu moo ko tabax di jànge ci daara yoo xam ne waqf moo ko tabax ña fay jàngale fu di leen fay di dem ci université boo xam ne waqf a ko tabax di fajoo ci hôpital boo xam ne bu tawatee waqf moo ko tabax même bu génnee àdduna ñu koy denc ci armeel yoo xam ne fu la kon waqf dafa am solo amoon taxawaay boo xamante ne nii ci civilisation islamique bu jéggi dara la woon ndax dañoo seetlu ne àdduna bi ni muy doxee ci wàllu koom bu dee ci Occident wala ci capitalisme ku nekk bopp sa bopp léegi nag ñi ne ba économistes yi ne ñi amut nan la def léegi bañ am ñi ne dafa am lu ñuy tuddee al ayaadi alxafiya les invisible nee nañ ci koom sëñ bii bu xëyee dox ay yitteem mën ma xëy keneen dox ku nekk yaa ngi ci sa bopp sa bopp nga tal léegi nag ku nekk boo talee sa bopp kon lépp ay normal de manière automatique ñoom noonu lañ ko gisee te suñu borom bindewul noonu àdduna yàlla dafa bind am ku juddaale loof handicap am koo xamante ne yàlla may ko xel tawféexalu ko xerañte gu mu mën a wute koom am koo xam ne mbiri boppam mënu cee sottal dara am ñoo xam ne suñ borom may na leen loolu kon yàlla dafa bind àdduna te yamale wut ñàkk yamale boobu nag moo tax suñ boroom lislaam am xereñ tey indi ay njumtuwaay yoo xamante ne nii day tax ñi am di gestu ñu amut ci yooyu noonu ci la zakat nekk ci la wax fu nekk ak yeneen njumtuwaay fu nee nañ dem nañ ba ci histoire état sax rôlum ci lenn rek la nekkoon fay ay fonctionnaire am ak fexe ba assurer sécurité li ma fi tudd lépp lépp lépp ci ay infrastructure waqf moom moo ko daan assurer muy hydraulique muy muy tali yoon joxe naa ci très euh, raay boo xamante ne nii istanbul la déparé ñëw ba makka lan moo taxoon pour yombal xujjaaju baytillahi alxaraam yi seen yoon loolu waqfa fa ko def ay hôpital ay cité universitaire ay yu doy waar yoo xamante ne lu nit di xalaat nga tey mooy taxawaayu état yi état tey waqf moom moo koy defal léegi nag jamono di dox ba réew yu bëri gis ne jumtuwaay yi ñuy yi ñuy xeexandool yu ci bëree bëree bëree bëri tajriba nañ ko essayé nañ ko waaye xëy na efficacité bi ak liñ ci doon xaar dëgg des na waaye jamono tax tey ba Nations Unies ci boppam li ñuy tuddee ODD ay objectif la yoo xamante ni nii moom lañ teg ne lii kat moom lañ bëgg fa lañ bëgg a yegg ci xeex ndóol àdduna bi mën a dal dund gi mën a lu mu tuddati ca yooya noonu ñoom dañoo adopté waqf dañoo adapté waqf jàppe ko am jumtuwaay boo xamante ne xereñ na lool pour xeex ndóol ci àdduna bi kon lii en tant que jullit dañ koy sante suñ borom ci jumtuwaay boo xamante ne ñun dem nañ sax xëy na ci càggante ba tubaab bi gën ñoo xam ndekete jariñ la te loolu euh, lu doy waar la loolu nag la réew yu bari tàmbalee dab dabaat boo gisee dëkk yu bari fu mel ne Maroc Arabie Saoudite Koweït ñii dañ ko wutal ay ministère spécial Maroc dañ naan waqf mooy ministère ba fa gën a riche tey Sénégal tey jii budget ngay wax waaye aw awqaaf ya nekk Maroc lañ géré ci ay bien la xam ne tey boo ko doon kii mooy lii mooy maalu alalu awqaaf ministère ba fa gën a riche ca wàllu waqf actuellement fii may waxee yow nii nii ca Maroc gee ay milliards de dirham lay lay lay lay lay lay lay lay lay pesé yeneen dëkk yi Covid boo demee feneen ak feneen ak feneen feneen ndax njariñ li dañ koo gis ñun nag suñu réew ñu ne duñ des gannaaw ndax avant loola moo tax ma ne al waqf baynal maadi wal xaadir fi Sénégal waqf démb ak tey ci Sénégal démb avant nan la ko nit ñi daan dunde lan moo amoon ak fii ñu toll tey mbirum waqf nan lañ koy doxee muy ak tomb bo xam ni mom lañ bëgg euh, taxaw ni moy na waqf ci démb dañu gis na waqf kër ku daan am yene ji mën nga ko taxawal gisoo ay formalité état reconnaître ko won amul benn loi amul benn cadre juridique mënoo ko woon a tasjil mënoo ko woon a formaliser fenn ci walu organisation mu desoon lool ci niñ koy yoree ñaareelu tomb ba mooy amul ci wàllu yoon lenn loo xam ne laal na ci wax lu dul ci atum 2015 ci la li ñuy tuddee euh, loi 2015 relative au wax mooy cadre juridique bi xam naa après incha allah danañ ko tasaare ci mbokk yi def nañ ko ci traduction français arabe anglais yàlla dogal na version arabe bi dafa jeex waaye incha allahu rabbi danañ fexe ba mu mën a am euh, mbokk yëpp mën cee jot danañ ko séddale léegi nii loi 2015 la Sénégal bi doog a xam wax waaye la jiitu loola amul loi amul lenn loo xam ne nii ci wàll wax ba nga xam ne ku daan jug bëgg a def waqf da nga ko daan def nii rek du am lenn lu ko protéger amul benn sécurité ba nga xam ne nit bu fi jugee sax def waqf ba pare amaana mënees na ko koo waqf ba mën naa naax saay mën nañ koo def ci leneen mën nañ koo mm, saax-saaxee wala dara ñi gis ni ci walu feq bu njëkk na feq encadré waqf ak muruna bi am ak musa bi c' est à dire di di méngoog jamono di ànd ak jamono dafa am avancement bu am solo boo xam ne nii ci fiqhul islam yi tey jii nii am na ci ndax dañ naan ahkamul waqf kulluha qaima ala al maslaha dañ naan ci muawada ci fiqh bo gisee ya, li nga xam ne muamalaat maaliya islamiya la bu dee wàllu jaay jënd commerce loo xamante ne nii rokkil ma rokki la foofu l'islam dafa taral lool condition yi moo tax ñu ne yuxtafaru fi tabarruat maa yuxtafaru fi muawadat kon ahkaam yi nga xam ne moo tënk lu jëm ci wàllu ay lépp lu jëm ci wàllu tabarro muy hiba muy waqf muy sadaqa mu dafa dafa am na su am na lu nooyee noo xamante ne nii wàllu jaay jënd nooyewu ko parce que lee dangay joxe ma jox la waaye lii kat ci sa baaxu bopp yow yaay yëkkati joxe kon loolu fekk kon ci ci ci muru na ak ak ak suhu la ak fekk euh, ni mu nooyee mën a flexible ba mën a ànd ak jamono lii nii xekk ma suñ borom la boo xam ne def na ko ci ndax lu tax boo gisee ci lislaam ni bindoo dafa am loo xam ne ay mabaadi la ay principe ak ay xawaayit loolu boo gisee alxuraan lu ci bëri ay mabaadi ak amma lay indi waaye jullit ñi ñoo am rôle ak responsabilité lépp lu alxuraan indi ci ay principe ñoom ñu nos ko taxawal ko jëmmal ko ci ay hayaakil ci ay institution wala ci ay loo xamante ni moom mooy tax mbir ma mën a dëppook jamono moo tax tey kenn xamul woon banque kenn xamul woon assurance te pourtant aaqila nizaamul aaqila fil islam nit bu daan rey nit ñu ne kët kii dafa war a jote téeméeri jigéen askan wi mu bokk dajaloo ku ci nekk la ko mën a jàppale ba nit ka kenn du ko rey loolu gisoon nañu tey dem na ba nga xam ne li ñuy tuddee assurance islamique takaaful yi foofu la jóge ci ci ci ci idée ak ci esprit ñii la ñu dégg jamono ji ñuy wax finance islamique kenn xamu ko woon te pourtant ahkaam yaa ngi fi woon waaye kon jullit ñi seen dool lépp luy ay tasawuraat ay mabaadi ñoom ñoo ko war a sottal ci ay hayaakil ci ay anzima ci ay système léegi nag waqf noonu la demee woon zakat yéen a ngi gis ay fond euh, ay institution au niveau national yoo xam ne ñoom lépp luy zakat ñoom ñoo koy yore ci àdduna bi gis ngeen ko waqf noonu la demee dëkk yu bëree bëree bëree bëri léegi bëgguñu cee gis gannaaw ba tax ñi jëmmal ko loolu la ñuy tuddee institutionnalisation loolu la ñuy tuddee bañ ko jëmmalee doyul waaye dañoo wut ay xaanuun cadre juridique mooy état xaanuun yi boo xamante ne nii mooy sàmm waqf bi liy njariñ li mooy comme waqf lu jiitu lii kenn reconnaître ko woon nit ki bu defee waqf dëdd àdduna mënees na koo salfaane léegi nag ñi ne lii dafa ñëw pour képp ko def waqf kenn du ko mën a jël kenn du ko mën a téye ba pare kenn mënu koo sàkkal pexe loolooy njariñu lii nii nga xam ne dafa am ay procédures yoo xamante ne notaire bi ci boppam moom dafa am lu ñuy tudde acte notarié li ñuy tudde wasiq moom mooy bu boobaa mooy wasiq bi mooy respecté yow waaqif bi ci bëgg a def waqf indi ko lan nga bëgg a def waqf almaalul mawquuf ak ñan ñooy al mawqufu alayhim ñoom ñooy ciy jariñ lii lépp boo gisee dañ koo sukkandiku ci charia islaam yi danañ expliquer lii nii nan lañ ko tëggee fan la aw ba ñu si fii léegi kon ci fekkoon islaam yi gis nañu kon waqf am na ay évolution yu bëree bëree bëri ndax bu njëkk wax bu sax lañ xamoon li ñuy tuddee al waq al aqa waqfu saabit shay saabit waaye nag waqful manquul di am loo xam ne day toxu day wër jaasi am na saxaabi yoo xamante ne nii seen i eh, adrian ñii seen i silaax lañ jëloon def ko ak seen xuyul seen i fas waqfu ko fii sabilillah nga xam ne fu yàlla wootee rek jëm loolu noonu mën a ñëw def mbiram bu ko defee ñoom buñ ko xasee ba waqfu nag moomatuñ ko génn na ci seen moomeel dem ci lan ci moomeelu maalullah milkullah mooy lu ñëpp bokk waaye nag société bi am ci bët di ci teg bët ne lii kat yëfi yàlla la dafa am lu ko tax a jug am ñu ko tax a jug ndax ki nga xam ne mooy def waqf mooy waaqif bi alal jim def waqf ak ñi ko tax a jug kon ak siixa ba la def waqf moo tax siixa bi jamono dafa dox ba nga xam ne ñun acte notarié fii ci senegal lañ koy tudde booy def waqf da ngay dem bi ne ko damaa bëgg a def wii lii waqf notaire bi bu boobaa lépp yow waaqif bi loo bëgg a def ci ay shurut dalay lay déglu ne kat nozaar yi kii laa tànn pour mu sàmmal ma ko lii laa ci namm pour ëllëg wala pour diw wala pour ñoo xamante ne nangam dab na leen wala nangam wala lu ci juddoo lépp mu tënkal la ko ci këyit bu la ko ci tënkalee moom da koy envoyé waa haute autorité di waqf bu leen ko envoyé ñooña saytu xool ndax li notaire bi bind dëppoo nag ahkaam yi nga xam ne moo tënk waqf ci sharia wala déet ñooña buñ paree ca jàngat ba delloowaat ko notaire ba notaire ba nag officialiser acte notarié yi gis nga acte boobu noonu bu xasee ba am du état du kenn du ku mën a taxaw ba sa njaboot yow mi ko def du kenn ku mën a taxaw contesté ko ndax loolu lan moo tax li ñu tuddee alximaaya alqaanuniya mooy protection juridique bi ndax day sàmm alalu nit ndax bu nit nit ki dañ ko daan def ñu jékki-jékki nit ki bu dëddoo ñeneen teg ko loxo wala objectif ba ñu détourné ko kon bu njëkk waqf dañoo dañ koo dañ koo jàppe woon comme alal ju sax waaye jamono di dox ñuy gis xeetu waqf yu bëree bëree bëree bëri nit mën a waqf tabax euh, suufam mën a waqf tabaxam waaye nit mën a waqf otoom lépp loo xam ne jumtuwaay bu am valeur nit ñi mën cee jariñu mu dagan mu lew nit ki mën a waqf fa sax xidmaam service am dentiste bi ku ne xam na ne day fa yeeku waaye am na jour yoo am na bis yoo xam ne danaan kër bisu àjjuma bu ne wala bisu àjjuma ci weeru koor wala ci weeru safar wala ci weeru shaban dama koy waqf képp ku ñëw di faju am problème am jafe-jafe bëñ doo fay dara loolu bu koy def di ko def di ko def baaxoo ko loolu waqf la bu ko defee benn yoon sarax lañ ko mën a tudde waaye waqf mooy luy continuer kon waqf service boobu lu mën a am la muy médecin bi muy mécanicien bi muy docteur bi ci màggalu tubaaku na gis nañ ne euh, couleur gi ëmb mécanicien yi dañoo baaxoo am ay service gratuit service de dépannage gratuit yu ñuy def loolu chaque année ñu koy def loolu waqf la waqful manfaa la kon waqf jóge na ci lu sax lu samp dem ci luy toxu luy wëndeelu ñëw ci ay service ñëw sax ba ci nit ki am ay action waqf ay bénéfice tey nga am cent action Sonatel maa ngi jéggalu ci tudd gi waaye ci société boo xamante nii mi ngi yëngu am ay am ay bénéfice yu baax yow ci sa bopp mën nga ne kat nangam ci samay part wala ci samay action kat bénéfice dama koy waqf jagleel ko daara ju nekk daaru musti wala ju nekk Touba wala ju nekk Tiwaawan wala feneen loolu du la wàññi dara kon fiq am na nu mu wéyee nu mu ba nga xamante ni nii waqf mënees na koo def ci anam bu ne wax la am mën ngaa nekk koo xam ne yaa ngi xëy di jàngale ji waaye am na waxtu yoo xam ne kat mën nga ne fu tàkkusaan jotee bisub àllarba wala bisub àjjuma kat képp ku bëgg a jariñu ci téere sàngam wala nangam waqf naa sama waxtu woo fi sabilillah di ko baaxoo di ko def loolu waqfu la kon yaatu na yaatu gu gu gu gu gu gu jéggi dayo bu njëkk nit ñi buñ daan def wakf, dañ ko daan def nii rek soit ñu dénk ko kenn ci seen njaboot wala ñi kii kooka xëy na lam war a sàmmoonteel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci taxawu ak waqf ci ci ci ci ci ko ci idaara ko ci manager ko dafay des loolu xaw naa indi ay jafe-jafe yu bëree bëri bëri bëri waqf bu njëkk dañoo tàmmoon rek tabax waaye nit sax dana ta dana waqf ab société am joxe benn misaal rek ci famille boo xam ne turki lañ nekk moom la ñuy tuddee famille Sabansi lañ koy tuddee ah ilatu Sabansi famille bu siiw lañ lan moo leen siiwal yàlla dafa mayoon koom kenn ci ñoom ay entreprise société nationale yi gën a ràññeeku ci wàllu liggéey ak ci wàll wut alal foofu ca Turquie waaye ka nga xam ne moo doon mu assis ba fondateur ba jóge na àdduna lu yàgg yàgg yàgg yàgg ab société entreprise am di wéy ba pare ay jëf yu baaxam di wéy waqf saban si famille boobu noonu bi nga xam ne mooy mu assis bi ki nga xam ne moo ko taxawal entreprise yooyu faatoo dafa def benn ne avant muy faatu ne am na ci loo xam ne ci part ci société bi dama koy def ay waqf dama koy def waqf li ci des mën ngeen koo doon continuer ngeen bokk ko di ko liggéey ba fii may wax ak yéen famille euh, ah, euh, euh, njaboot googu nekk ca Turquie lu ëpp ci téeméer ak ñaar fukki bërëb yoo xam ne ay awqaaf la jëmmal nañ ko ci ay université nee nañ ci ay centre éducation tabax nañ ci lu mat 38 centre ak fukki fukk ak juróom-ñeenti bërëb yoo xamante ni nii fa la fale ay étudiants wala ay ndongo di dal ci ay centre de formation yoo xam ne ay formateurs lu ñuy former tabax nañ ci fukki centre ak juróom-benn ci ay hôpitaux ak ay centre de santé ñeenti centre ak ay bibliothèques ak ay centre yoo xamante ni pour wàllu tàggat yaram la ba nga xamante ne nee nañ fu ba lu ma dix mille emplois créé na ko fukki junni yi ay nit ñoo xamante nii ci liñ def taxawal ko ci ay waqf ci lañuy xëy di ca gontoo ci ay bourse yoo xam ne nii dañuy dañuy jàng ñu ñuy jox bourse lu mat juróom euh, euh, benn junni trente mille bourse ci ay prix ci di xiirtal yi nga xam ne ñooy jàng diine ci wàllu science euh, euh, science ak ay recherche lu mat mille vingt trois prix def nañ ko te loolu noonu benn nit moom moo amoon alal yàlla baaxe ko mu ne kët ah génn àdduna kët bis la boo xam ne dana ñëw te lii ma tàmm def ci lu baax mën naa taxaw léegi kët xaaral ma def waqf xiirtal ci njabootam ba ñooñu mën a def loola li ci doy mooy wax fu yooyu mu taxaw téeméeri waqf ak ñaar fukk yooyu noonu ci ay quartier résidentiel la Turquie nga xamante ne tey bu doon suñu Sénégal ñi ne almadila la wala Fann résidence wala feneen nga xamante ne revenu locatif yi la loola di jur kenn xamul ñaata la toll ci alal léegi nag loola mooy waaw loola mooy jariñ moo continuer di am njariñ nit ñi di ci jariñu mu jur ay xéewal ak ay yiw yu bare bare bare bare ndax waqf da fay taxawé taxaway bo xamanteni ni lu état mënta def lay doon ndax état jotewul ci di tabax ay hôpitaux yu doy ay dispensaires yu doy ak ay centre de santé yu doy légui nak doomu aadama yu jullit ñi bëgg lu baax bëgg a jariñ seen moroomu jullit ne kat kat yoonu jaamu yàlla la ñi ne dañuy taxaw euh, jàppale état ci loolu kon nee naa leen sànq ci wàllu koom dañ naan secteur public secteur privé waaye dañuy dafa am ci dugg bi lu ñuy tudde tiers secteur ñu koy tudde alqitaaru saalis boo demee ci pays anglo-saxon yi fu mel ne états uni domaine boobu fonk nañ ko lool damay faral di joxe exemple ci université américaine yi nga xam ne ñoo gën a ci wàllu science wàllu recherche ñoo ci gën a développé gannaaw yàlla tey ci philosophie wax ak concept wax moo leen fa yeggale ndax ku ne xam ne ne civilisation islamique dafa tegoon loxo lépp ay nit daan jóge ci xarb bi ci occident bi dem di jàngi ñu bëri bañ jàngee ba delluwaat ñoom ci lañ taxawal lu mel li ñuy tudde ay trust trust genre xeetu fondation la waaye ba tey wute nañ mais ñoom ci loolu xaaruñu état ci taxawal université université yu bëree bëri xaaruñu subvention ci gouvernement fédéral américain ay nit ñooy taxaw jël seen alal ne que lii defal naa ko université Harvard wala defal naa ko université Texas wala dara seen alal ñooña nag alal jooju buñ ko jëlee taxawal ay société d'investissement yoo xamante ne ñoom li nga xam ne mooy moomeelu université bi loolu rek la ñuy jël di ko investir loolu di jur. tax université bi di bokk ci àdduna yi euh, ci ci université yi nga xam ne ñoo gën a raw ci àdduna bi ba nga xamante ne ni enseignement de qualité lañu fay def loolu am na ci ay hôpitaux ci ay cliniques ci ay dispensaires ci ay université kon université yi gën a mag ci àdduna bi boo gisee seen boo jëloon budget yi rek dépassé boo jëloon dëkk Afrique yépp ñoo leen raw ci ay budget ci ay milliards de dollars yu kenn mënta wax kon tey buñ xaaree na ñun suñu état Sénégal université lépp mooma hôpitaux yi lépp mooma route yi yoon yi lépp mooma paju gi ndox mi gis nañ jafe-jafe yi kon lii ñëw nekk benn jumtuwaay boo xamante ne nii képp koo xam ne yow bëgg ngaa jaamu yàlla waaye bëgg ngaa jariñ saw askan loolu it lu ci am solo la léegi li nga xamante ne nii gannaaw waqf xam nañ ko mooy taxawal loo xam ne dañuy sàmm jëmm ji saraxe li nga xam ne mooy meññin mi léegi ñëw ci yan xeeti waqf moo am li nga xam ne moom mooy waqf ci senegal mooy loi bi ko tënk yan xeeti waqf la ne moom moom la bàyyi xel ndax dañoo gis ne ci yeneen dëkk yi ñaari xeetu waqf rek mooy lu ñuy tudde waqf ahli zurri ak waqf xayri mooy loo xamante ne ni pour ñëpp ak loo wala loo xamante ne nii man sama njaboot kese laa koy defal bu dee fii dañoo am ñeenti xeeti waqf yoo xamante ne nii lii nga xam ne moo tënk waqf ci Sénégal indi na ko waqf bi ci njëkk mooy ne dañ na sax état ci boppam moom day def aw awqaafi boppam aw awqaaf yoo xam ne da koy taxawal ci xaalisu état New ju doole ji tax koo jug ñu koy taxaw di ko ñoŋal gën koo taxaw ba lu ca juddoo mu am ñum jariñ loolu mooy li ñuy tuddee al waqf la am wala waqf public kon waqf public mooy premier bi suñ baa ngi naan ma xam naa yenn baat yi waaye comme dañoo nekk ci loo xam ne moom xëy na mënta ñàkk di ko tudd xam naa jéggalu rek danañ ci jëm luñ mën léegi waqf public boobu noonu mooy bu njëkk bi mooy bi état di taxawal ñaareelu waqf bi mooy ku ne am na sañ-sañu ne kët damay taxawal waqf wala sama kër ga nekk Dakar ma koy luyee bàyyil naa ko ci sama njaboot wala ci képp koo xam ne ci lu ma ku ma jege ndóol dab na la wala nga am jafe-jafey tawat euh, faju boo tawatee wala dara waqf boobu mën naa nekk am na lu ñuy tuddee al waqf al khairi mu ñu tudde waqf d'intérêt public moy waqf la bo xamanteni ni ku ne mën nako taxawal ne kat li kep ku nek ci darul am jafe-jafe tawat waqf bini ni kat lolo ko tax a ci ñu bëgg a mënu ñoo faju te seen loxo jotewul gannaaw waqf booboo ko tax wala kep ko xamanteni ni bëgg nga jang mi ngi mel nga jang ba am bag tay masha allah ta sa loxo jotewu ko ginnaw nga taxawal fii benn waqf boo xam ne dama koy def waqf intérêt public pour intérêt yi Daarul Muxti képp ku fi nekk boo demee Dakar waqf boobu noonu moo lay jox bourse wala boo amul logement moo la koy lijjanti waqf booba noonu mën naa sax taxawu ñu xereñ ñoo xamante ne seeni waajur amuñu yenn njumtuwaay yi waqf ba jàppale leen bañ mën a dem ba nekk ñu xereñ ci seen wàllu domaine kon loolooy waqf intérêt bi intérêt léegi nag ñeenteel bi mooy mix mushtarak al waqful mushtarak mooy yow mën ngaa taxawal benn waqf ne kat am naa sama kër goo xam ne R plus la la cay juddoo lenn li ci sama njaboot la jëm li ci des li maslaha am ci ay ñu amul ndox wala ñu am jafe-jafe wala waqf bi kat lépp lu ci kiiwee dama koy tabaxe ay teen pour dëkk yi nga xamante ni am nañ jafe-jafe boobu wala yu mel noonu kon ñeent xeetu waqf yi moo am ñi ngi séddale brochure yi ak li nga xam ne mooy xaanuun bi lil asaf bi ñuy ñëw dañoo fekk euh, li nga xam ne moom lañ ko tëggee woon ci arab mu jeex waaye incha allah danañ ci gën a góorgóorlu bu ko defee mu mën a tas mën a kon ñeent xeetu waqf yi moo am waqf public mooy bu état mën a def waqf privé mooy sénégalais bu ne am na ci sañ-sañ waqf boo xamante ni nii nag maslaha amala mooy intérêt public moom moom yamale woo ko ci ay nit waaye yow mi nga xamante ne yow yaay sénégalais bi yow yaa koy taxawal ngir intérêt général waaye yaa koy taxawul sa bopp bu dee waqf public état moo koy créer taxawul ko boppam waaye bu dee waqf intérêt public état moo koy euh, doomu aadama bi sénégalais bi moo koy taxawu moo koy taxawal taxawul ko boppam léegi nag bu dee waqfu privé nit ki nga xam ne moom moo xool ci aw ci ci famille ni kët am nañu seen joxañ ay nit bu boobaa moom ci boppam moo koy taxawul boppam nit ñooñu noonu génnul ci famille looloo tax ñu tudde ko privé moo tax di araab ñu naan al waqfu durri wala al waqful yi wala al waqful aili kon waqful am mooy public privé nag mooy lu nit ki di def intérêt public nag mooy lu ñëpp bokk mix mooy bu la neexee nga ne ah lii kat lenn li dama koy jagleel sama kii lenn rek day nekk li ma saa am léegi nag yan xeeti alal lañ mën a def waqf waqf si na koo def ci lu taxaw mooy li ñuy tuddee waqf immeuble almaalul ak thabit mën naa nekk it ci meuble ay livre nit ki bay toolam ba pare lam meññee mu ne kat lii at mu ne man wala sama toolu ba nekk gannaaw pekes wala gannaaw nangam danaa ko def waqf ba ci ay juróom mën na koo jur jur comme nga am benn mi ngi mel ne nga am ak jur boo xam ne macha allah ñi ngi meññ lu ca juddoo rek nga gis ak famille boo xam ne fii ci daaru seen loxo jotewul ginnaaw nga jul ca benn bu góor ak benn bu jigéen jox leen ko ngir que ñi mën koo toppatoo buñ cay jaay meew wala buy jur du jur loola mën leen a taxaw autorité di wax am na projet boo xamante ne nii ci loolu la jëm ba nga xamante ne ñi nekk ci àll bi mbay nekk seen yitte wala yar nekk seen yitte nga jël ay xeeti race yoo xamante lii bu ñu ko kiwee dana leen jural ñeneen mën cee jariñoo ci même gox bi nga koy def noonu kon da nga dem ba nga xam ne nii da nga xeex ak ndóol fu mën naa nekk ba ci ay appareil médical fan yi ku ne dégg na ci dëkk bi wàllum dialyse jafe-jafe yi am pour dem nit di ngir jaamu yàlla mu dem jënd ay machine dialyse nekk lii waqful naa ko hôpitalu Daaru Musi bi wala hôpitalu Touba bi wala hôpital ba nekk Dakar principal wala feneen loola di fa des nga am yéene daf ko waqf ay doomu aadama yi ci jariñu kon ci appare mën na cee nekk ba ci ay or ay bagage or ci xadaaral islaam yi dañoo gis ci ay soxna yoo xamante ni ngir seen bëgg lu baax dañ daan jël seen i seen i takkaay di ko def waqf wax fu dem di dem di dem ba nga xamante ne nit ki jotewul tabax ab immeuble waaye am na ab 1000 francs ab 3000 am wala ab 30000 am ñu ne kat am na bërëb bu taxaw mi ngi mel ne alwafa ne kat day taf li ñu tudde al fu naqd yi mooy lan dañoo am ay néew di doole yoo xam ne danañ leen di geesu ñu ne kat suñ li ñu tax a mooy ñu matal 10 million wala quinze millions képp ku ca participer wu 15 millions yooyu bu ñu ko jëlee def ko ci benn fonds. di ko investir la jur loola ñi am fu ñu koy def ca ña koy yow 15 millions yooyu day taxaw fukki millions ak juróom ya day taxaw waaye day continue day day day wéy di jariñ loolu la ñu tudde al waqfu naqd yi ci jamono ji lañ dem ba nga xamante ne nii dëkk yu bëree bëree bëri fonds waqf monétaire da leen a indil lu mucc ayib ma joxe exemple ma joxe ci misaal rek réewum Koweït Koweït actuellement nii li ñuy tudde wax fu monétaire dem na ba nga xam ay centre yu mag ci wàllu fo wax fu monétaire bobu moko moko taxawal ay machine médicale dama cey gis ben affaire bu doy war ñom buñ def bo xam dama ne li de Sénégal xam nga tay da ngay jékki-jékki ñu ne ci gox bu sori tabax nañ fa ben centre de santé ñaare médecin yu bari duñ fa bëgg dem ndax gox ba day sori tay buñ nee tay ji ni ca gannaaw Tamba affectation am na fa médecin yu bëri duñ ko bëgg ndax lan moo tax yoon ba sori na jafe-jafe yu bëri na ba pare pay ga tax koo demee noonu ñoom ci seen xereñte ci dañ koo jaare ci waqf taxawal loo xamante ni day jur dara la cay génne nga xam ne dañuy am loo xam ne dañ koy jagleel képp koo xam ne yow ñi ngi lay affecté ci benn zone bu sori sawaroo ci ñi la cay taxaw financièrement di la ca gën a encouragé tey Sénégal ay centre de santé yu bëré bëré bëré bëré jafé jafé yoy lay am motax dañ nan yomb na lol taxawal centre de santé waaye médecin buñ lay affecté jafé jafé la ci Touba gi gis nañ fi yu bëré bëré bëré bëré bëré bëré légui rek la tané bi hôpital bi ñëwé kon waqf dafa am taxaway bu am solo bo xamanteni ni ci walu santé ci walu paj walu jang walu même dox da ngay xol li ñi tuddé monde rural moy ñi nekk ci kaw gi ku ne xam na né joté ndox mu sell lu jafe la ci ñoom jafe-jafe yu bëree bëree bëri lañ ciy dund waqf boobu noonu da ngay gis ay forage ay château d'eau ay bañ na ko ba dañoo tuddee waqf hydraulique loo xamante ne nii nit ñi ndem ku ko mënta def taxawal lépp waaye yow léegi mën nañoo organiser noo xamante ne dañ naan que lii foo waqf la bu ñuy taxawal fii ci daaru nga xam ne kon tund wii village yi nekk ci kaw gi nekk ci daaru lépp duñ am jafe-jafe ndox nit ñi di jaamu yàlla tey jii nit ab immeu am immeuble am Dakar mu ne kat sama ñaari appartement yi def naa def naa ko waqf dama koy luy waaye lu ca génne kat ci taxaw néew di joole ji lay doon nga xamante ne loolu même boo faatoo duñ ko boole ci li ngay doon waaye tey jii nii loolu dañ la koy jàppal alal joo xamante ne nii li loi bi wax boo ko dem ca notaire ba du kenn ku ko mën a sàkkal pexe Waktu ba dana am ku la ko taxaw bu la ko taxawulee moom day ak atay lislaam yi waaye dana fexe ba nga xam ne waqf dana mucc ay li ñu tudde waqf intérêt public waqf intérêt public mooy waqf bu jariñ ñëpp dafa am ay jéego yu am solo yuñ ci def mooy ne boo ko taxawalee yow état danaan la yow mën ngaa am est li ñu tuddee statut d'intérêt public euh, pardon reconnaissance d'utilité publique yow boo xasee ba am loolu lépp luy impôt lépp luy tax, lépp loo xam ne état da koy gàll ci képp koo xam ne yaa ngi jur luy am koom dala koy teggil parce que ndax lu tax dangaa nekk ci njariñal askan bi moom loolu la comprendre moo tax ndax li ngay def defoo ko ngir sa bopp da nga def ngir askan mu am ay jéego yu bëree bëree bëri ci li ñuy tuddee fiscalité lu am waqf mën naa nekk loo xam ba ilal abat mën nga ne sama immeuble bee waqf naa ko ba ilal abat def ko ngir daara yi ngir hôpitaux yi waaye bu la neexee am na lu ñuy tuddee al waqful muaqqat loo xam ne da koy def ne fii dix ans yii mi ngi mel ne tey ki nga xam ne nii daa am ab immeuble ma ne kat fukki at yi lépp lu génn ci immeuble bi def naa ko waqf ngir jumaay Daaru Musti muy électricité muy entretien muy maintenance muy gardiennage muy lépp loo xamante ne rek frais la wala lu nit di dépense xaalisam kon nit ki mën naa jël umam ne lii def naa ko wax defal naa ko daa jumaay daaru ba faaw waaye kat bu ma neexee ci fukki at yi wala ci benn at bii lii defal naa ko daaru musti ba ci commercant bi bu ko neexee mu ne bisub àjjuma fu mu jotee lépp lu ma am ci bénéfice def naa ko waqf bu ko neexee mu def ko àjjuma bu ne bu ko neexee mu tànn weer wa ko neex waaye kañ lay nekk wax mu loo xamante ni lii day wéy kon comme waxtu waa ngi dem ñi fexe rek institutionnalisation waqf du Sénégal lan mooy lan moo waral taxawal ab bànqaas boo xamante ne nii lépp lu jëm ci wàllu waqf du Sénégal moom moo ko taxawal gannaaw bi gisee ne dëkk yu bari yoo xam ne muy Maroc di Arabie Saoudite di Bangladesh dañoo yittewoo waqf ba ci sax dëkk yu dul jullit sax ci ay îles ci Inde ay Singapour boo demee ay awqaaf fa ndax dañoo gis njariñ li ci am kon waqf day taxawé taxaway bo xamanteni ni di fat ay mbir yo xamanteni di taxawu état ci lo xamanteni ni meunta satisfaire ñepp meunta taxawu ñepp ci ay taxawal ay hôpitaux ay école ay dispensaire ay yeneen ak yeneen ak yeneen kon ci histoire xéet waqf yu bëré bëré bëré bëri gis nañ ko ci légui nak comme secteur waqf ci Sénégal amul won lenn lu ko taxawu amul won ben bankas amul won ben loi ci la senegal gis njariñ li taxawal ben bankas bu ñu tudde autorité di waqf bankas bu yittem ak liko taxaju moy lepp jug luy waqf ci senegal mu taxaw ko kep ku bëgg def waqf mu taxaw la ba paré di nit ñi di len wo ci waqf ba paré yamul ci lola waaye day am ay waq fi boppam la ñuy tudde waqf public yoo xam ne ngir ñaari ñaari askan wi moo ko tax a jóg ba nga xamante ne nit ki def waqf dala koy saytul dala ko sàmbul ba ci boo fi dëddoo ndax am na lu ñuy tudde ay mission de contrôle de supervision yoo xam ne nit ki waaqif bi nit ki def waqf churut yi mu tegoon moom moom la ñuy jël di ko nattaleeg li nga xam ne moom mooy li fi nekk di xool ba xam dëppoo na wala déet lu jëkki ñu jooyantil ko ko te nit ki mën a tëdd ca moo tax sadaqa jaariya googu yenn saa sallam doon doon daan daan daan daan daan li mu wax ci xadis boobu noonu dafa am sol nit ki bu faatoo lépp may taxaw ba mu des da ciy tudd sadaqa jaariya kon Seydina Ousmane ma nga xamante ne depuis mille quatre cent ans junniy siècle ak euh, ak euh, ñeenti téeméeri at ba léegi nii moom waqf ba mu taxaw doon ba ngay kon am na ca Ndar ku ñuy tuddee El Hadj a Diop ab commerçant bu mag la woon ci 1929 su ma juumut 1950 7 1907 la taxawal dafa am jàkkay benn baar ci wetu géej gi jàkka ju siiw la woon ju siiw la ca Ndar ba fii may waxee jëw nii am na ci biir jàkka ji foo xamante ne nii ay néeg la ay appartement yoo xamante ne nii ngir julliti yàlla yi nga xamante ne nii dañoo tumurante ci wàllum dëkkuwaay waaye ànd ak loolu dafa taxawal ci côté bi leneen lu tudd nday minbar la ko tudd kër gu am njariñ gu am maanaa gu am valeur la cay juddoo fii may wax ak yow nii ca 1907 ba léegi moom mooy taxawu jàkka ja di fay imam ba maintenance ba courant ba ak néew du yoon bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bërëb lan moo ko may ci 1907 mënoon naa faatu affaire ba yam fa déedéet waaye commerçant la bu yàlla mayoon dafa kii woon ci àdduna daa dem ca notaire ba ne ko sama lii doonte wax fa amaguloon ne ko dañ ko fi bàyyi kenn du ko dodd lu cay génne na taxawu jàkk ji ba fii may waxe yow nii te notaire bi ko defaloon sax du ab sénégalais ci colon yi la mbokkoon kon njariñal euh, lu buy taxaw waqf dafa am solo moo tax imaam Maalik nee naa leen ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar euh, juróom-ñaar fukk ak euh, juróom-ñett la fi jóge 179 hijri mu ne ay na awqaafu saxaaba ana waqf yi saxaaba yi defoon lu ko waraloon mooy ne fekk kat ñëw na wax na wàccoo naa ñun waaye ñun kat taxawaluñ jëmmaluñ ay institution yoo xam ne mooy sàmm loolu loolu luy njariñal kon lii nga xam ne état senegal taxawal na ko état Sénégal dafa lëkkaloo benn li ñu tudde al bankul islami li tanmi mooy banque islamique de développement signé moom ci atum 2011 benn xaatim xaatim ba mooy na taxawu ko ci lépp loo xamante ni nii pour soo xam waqfu la ci Sénégal ca loola ca la banque islamique jëloon engagement ba fii may waxee yow nii ne dana financer Sénégal immeuble R plus boo xam ne mi ngi toll ci 20 millions de dollars foofa ca Ndakaaru ca woto ambassade de France boo xam ne lépp lu ca génn dañ koy jëlaat dugal ko ci daara yi toj nañ ko bu yàgg pour raser ko ndax ay bâtiment yoo fa nekkoon mooy école Amadou Assane bu siiw boobu nekkoon ci biir ville waaye fii may waxee yow nii nii tabax bu bu jugee centre commercial dana ci am. ay bureau da nga ci am nga xamne lepp lu ci genn rousé ci dañ nan ke li ke ay daara yi ak lo xamanteni ne lepp lo xamne julit ne jullit yi dañ ci jariño lola moy li ko njëkk a mo tax waqf public bo mo xon lool la état bi taxawal amna benen beneen waqf boo xam ne dañoo na xalé yi bu ñuy jàngé école ñi duñ dékki ñi seen loxo jotewu ko gannaaw ta loolu mën naa am lu jeexintal ñi ne ke dañuy taxawal benen projet bo xamanteni ni lu ci genn lu ñuy tudde ay cantine scolaire xalé yi meew lépp lu ñu soxla ci la ko ñu tuddati kon loolu état mën na koo def nit ku ne mën na koo def ci cause ci lépp loo xam ne gis nga ne lii kat lay jariñ bu dee loi bi nga xam ne teg nañ ko lan moo ko tax a jóg lan mooy njariñam lan mooy ay objectif am yoo xam ne visé bi ci njëkk mooy fexe ba sàmmal nit ki def waqf alalam mooy li ñuy tuddee protection juridique ximaaya qaanuni li mu fi def loi bi kenn mënatut a teg loxo ci wax wala kenn mënta détourner objectif bi li la tax a sàmmal la jëmm jooju ba pare yow waaqif bi yow mi def waqf charte yi nga teg mu la koy saytu di la ko toppal ñi ngi fi bàyyi ak ñi la koy toppatool ndax respecté nañ la nga waxoon wala déet bu fekkee ne da nga ne lii kat waqf buy wéy la waqf ba dañuy fexe ba mu wéy bu fekkee ne da nga nekkat ci vingt ans yi wala ci dix ans yi wala ci un an yi waqf ba dañuy fexe ba ñu respecté loolu ñu respecté loolu lii bi ñu ko taxawalee dañ koo def ngir li fi nekkoon ci ay nit yu amoon yéenay def waqf ñoom ñi ñëw fexe ba li loi bi wax ñi tënku ci ba seen alal bi mën leen koo sàmmal kon lu fi jiitu woon lii fexe nañ ñi ngi ci jéego yooyu nit ñaa ngi ñëw ngir sàmmoonteeg li nga xam ne loi wax na ko lii it fexe it ba nga xamante ne lépp loo xamante ne ni ci wàllu développement nit ñi mën a dund ci jàmm am dund gu teey am dund gu dal fexe ba la wax waqfu doon def ca l'histoire ca histoire di tax ba dem nañ ba nee nañ dañ daan fekk aw fas wax na dana ba màggat ba ko bi boroom soxlaatu ko ta bu ko bàyyee ci mbedd mi naaj bi ray ko mu tumuranke dafa amoon ay kii yoo xam ne ay bërëb yu ñu defaroon ngir muus mu nekk ci kii bi tumuranke foofu lañ leen daan joxe ñuy lekk euh, culture boobu gis nañ ko fu mel ne turki dañ daan dem ci montagne yi dafa sotti dugub ju bëri ngir lan leer sa salam nee na kulli kabidin bin sadaqa ñanaaw lekk lépp di ci jariñ nit bu daan liggéey ci kër toj benn kaas wala dara dañ ko daan téq ci alal ci salaire dañoo defoon ay awqaaf yoo xamante ne nii ku daan toj dara sa kër wala bërëb ba nga daan liggéeyee rek wala nga am fa benn accident loo xam ne causé nga ko fa rek def nga ko fa rek am na waqf boo xamante ne nii moom moom moo la daan fayal loolu kon waqf bàyyi woon dara léegi nag lii nii li ko tax a jóg mooy indiwaat loolu fexe ba nit ñi jàppaat ci ba taxawal lu mel léegi nag li ñu tuddee processus d'élaboration nan lañ ko fan lañ aw ba defar lii loolu dafa mat a xam ndax comme dafa aju ci wàllu diine ñu bëri dañuy xaw naan ak niñ ko tëggee nii dañuy jàpp ne lii kat luñ jëlee feneen la wala luñ déedéet li ci njëkk mooy waqf mbiri lislaam la ci xawaarij ci attey lislaam yi la tënku boo ci gisee fii nii comme niñ koy defee ci réew yi nga xam ne dañoo tënku ci diine seen loi bi nga xam ne moo tënk waqf naka noonu it ndax bañ koy def dañoo tudd dañoo def li ñuy tuddee benchmark dem ci dëkk yi nga xam ne dañoo amoon expérience nan lañ ko doxee fan lañ aw ba pare li ci gën a kii mooy dafa nekk loo xamante ne lu participatif la woon loo xamante ne képp koo xamante ne ci nitu diine ak ci ñi nga xam ne wàllu tëgg gi nu ay xeeti yoon loi ñoom ñëpp ci ànd tëgg ko ba ñu génn ko ci anam diine ba pare bàyyi xel ci suñuy réalité ci loo xam ne suñuy yëfi bopp la suñ doxalinu bopp la loolu it niñ tëggee lii nii bàyyi na ko xel ba nga xamante ne bi mu amee am na ay tournée yoo xam ne li ñu tuddee science euh, de partage yoo xamante ne ni dañ doon dem ci kilifa diine yi ci ñi nga xamante ne nii ci wàllu ay député ci ba ci notaire yeeg ministère yeeg ñëpp ànd ci di leen ci gën a ubbi seen gët ak yu demee noonu léegi nag comme lii dafa ñëw ne kat day taxawal day sàmm waqf ci senegal léegi moom yan innovation wala lan lu bees la lañu liy indil tey ci boo ko doon xool ak yeneen dëkk yi li ci gën a am solo mooy yeneen dëkk yi dañoo baaxoo ñaari xeetu waqf nga ko da nga fa daan fekk public ak privé lu nit di def wala loo xamante ne da koy def ngir julli ñi waaye bii dafa ñëw indi ko ci ñeent bi ci gën a am solo mooy waqf intérêt public li ki di taxawal ne lii kat mën naa koy def waaye ngir njariñal askan wi loolu da ko da loi bi da koo tëggee ci anam bu mucc ay indi ci ay yombal ak ay kii yu am solo yoo xamante ni nii ay formalité ak ay procédure la yoo xam ne boo xasee ba respecté yow boo amee reconnaissance d'utilité publique bi yow da ngay moom sa bopp mucc ci lépp loo xam ne ci taxe la ak ay impôt loi bi bàyyi na xel ne nit ki bu defee wax du ci mën a dellu gannaaw ndax ah lii kat nee nga dama koy génn ci sama alal def ko fi sabilillah loi bi da koo bàyyi xel taxawal benn waxtu ne lii kat man lay jariñ loolu moom day xorom bu boobaa kon mënoon nga koo rek téye mu nekk sa alalu bopp waaye nit ki bu taxawalee ab waxtu dem ba ñàkk dab wala jafe-jafe dab loi bi dafa bàyyi xel ne bu boobaa moom mën naa jariñ ca waxtu bàyyi na xel ne tey jii bu ndóol comme dañ ne waqf dafa bokk ci ay xasaayisam ci ci ci ay caractéristiques ni mel nit ki bu ko xasee ba def mënu cee dellu gannaaw kon ndóol fu mu dabi nit ki def waqf rek ah loi bi nee na ko ah yow kat da nga doon def ngir lu baax ngir taxaw ay nit tey nag yaa ci dina yeyu ñëwal nga jariñu ci sa alal ci li nga xam ne moom la ñu tudde ay avantage fiscaux ci wàllu fiscalité ku ne xam na ne képp ku taxawal dara luy jariñ sa kër sax boo ko da ngay jékki-jékki ñu indil la impôt foncier xaw ma seen xeet yooyu lu ci bëree bëri ne la lii da ko fey kon activité bu mu mënti doon rek am na ca yoon wàllu fisc am na ca yoon waaye lu jëm ci wàllu waqf rawatina waqf d'intérêt public dañ koo teggil ci ay da ba nga xam ne sax entreprise ba nekk fële bay def ay activité bu xëyoon ne moom ci ay bénéfice day jël dara jagleel la ko yow waqf bi bu boobaa entreprise boobu am na ci lenn ci luñ koy teggil ci ay impôt yi taxe loolu waqf bàyyi na ko xel kon procédure ni ñuy formaliser waqf ndax waxtu waxtuwaa ñiy dab man bu ma bëggee def sama waqf fan laay aw ak naka lan laa koy defe maa ngi fàttali ne ñetti mbir yii moo tax a jóg autorité di wax fexe ba nit ñi xam waqf gën a jàpp waqf moom la ñuy tudde promotion waaye ñaareel ba mooy saytu ak taxawul ci def waqf bi waqfam ndax nam war a doxee ña ngi ko koy doxalal même bu génnee àdduna wala déet ñetteel ba ba gën a am so ba ñetteel bi mooy ay waqf public yoo xam ne moom da koy def ngir ñaari jàll léegi nag yan la lan mooy les procédures de formalisation ci yan procédure la ñuy aw bi ci njëkk mooy waqf boo xam ne état moo ko créé loolu laay tudde waqf public loolu moom état moo koy taxawal moo koy saytul boppam njariñ li moom mooy naan ci askan wii ci way laago yi wala way tawat yi moo ko tax a jóg ci loolu dana ñëw ci woo foo wax public bi moom lañ koy tëjee léegi nag nit ki bu bëggee def wax dañ naan da dem ca ñëw ne ko ah lii de sama alal la dama koo bëgg a ci sama moomeel taxawal ko def ko waqf fi sabilillah ngir jaamu yàlla yi bu la neexee nga ne ah kenn ci sama njaboot muy waqf privé laa koy jagleel wala dama koy def ngir intérêt wa darul mooti ci ñi am jafe-jafe faju jafe-jafe njàng wala jafe-jafe ndox mu sel wala nangam ak nangam ak nangam mën nga xol ay xeeti jëfin yu baax yu bari né ne lii bëgg def sama waqf notaire bi déglu la xol yow mi nga xamné yaay def waqf ndax charte yi nga xamné nit war maye alalam ci ba ba paré mom sa alal ba paré ndax alal jojal lewna na ndax mënees na koo def wax wala déet ñan ñoo ciy jariñu ndax loolu noonu lu lu lu lu lu lu lu licite la wala déet ña jariñu ndax koo bu baax la ndax kenn mënta def fa ab casino ne wax bi nii dama koy def pour pour pour pour pour def ko ci lu neexul yàlla kon bu notaire ba paree ci këyit woowoo la ñuy tudd acte notarié day jël jébbal ko autorité auto autorité ñooy saytu ndax wax li notaire bi wax comme notaire bi wàllu fiqul islam yi taxu koo jotee ña fa nekk ñoo koy saytu càmbar ko ndax dëppoo naa ni ko charia dicté wala déet bu pare da koy jébbalaat notaire bi comme kayitu notaire ku ne xam ne ni mu amee valeur day génne li ñuy tuddee ni lii mooy acte notarié bu boobaa nit ki bu ko téyee waqf ba bu fekkee ne waqfu ilal abad la ko def waqf boobu day wéy di nekk loola bu fekkee ne yeneen xeetu waqf yi ñu tudd loolu la loolu lañ ko koy sàmmal kon lii nii dafa am solo ndax imaam Malik bu toogee ba naan ana waqf yi saxaaba yi defoon Omar ibnul Xataab nee na bi mu defee waqf boo waqfam boobu noonu nee na ndeysaan da koo seedeel waa Madina gépp nee na loolu xiirtal ñu bëree bëree bëri def waqf kon nit ki bu mu xeeb daraam bu mu xeeb taawam ci bis boo xam ne mën na koo xiddimaal jumaa ji samedi koo xam ne ouvrier la wala ci loo xam ne mën na koo taxaw fii ab électricien wala ab plombier wala lu mu mënti doon loolu mën na caa waqf bisam boo xam ne day ñëw kat ah ne comme travaux jàkka ji man mën naa cee waqf sama temps wala leneen kon ñi tëj rek ci loo xamante ne nii haute autorité da koo taxawal nee naa bii nii ci atum 2015 lañ ko taxawal ci atum 2016 ci lañ taxawal direction générale am ci direction li ñuy tudde commission de supervision ndax haute autorité dafa nekk lu indépendant nekkul nag loo xamante ni nii dañ koo gàll mu nekk ab département wala ci benn ministère wala dara déedéet nature bi waqf bi am. moo laaj li koy yore ak li koy càmbar ak li koy sot moom boppam am num taxawee noo xamante ne nii day autonome digganteem ak état am autonomie noonu lañ ko tëggee moo tax ñi tudd ñi am agence spéciale boo xamante ne nii ministre bi saytuwu ko déedéet dafa am lu ñuy tuddee genre euh, majlisul euh, ni koy waxee al majlisul idaar yi conseil d' administration commission de supervision ñoo xamante ni nii ña ca nekk

depuis 2018 la ay mbiram tàmbali ba fii may wax ak yow nii léegi nag ci terminer rek ci benn point mooy li ñuy tuddee al waqfu naqdi yi waqf monétaire wax naa xeetu waqf yu bëri dafa am lu ñuy tuddee waqf public monétaire ci 16 septembre 2022 dañu jël président de la République dafa jël décret bo xamante ni mom fexé ba waqf monétaire ndax njariñ lim am waxna ko ci Koweït ci ay centre de santé ci ay équipement ci ay walu matériel yu jalis def ci yoyu nonu motax Sénégal taxawal ni kat day fond waqf public monétaire fond bobu Nyangkoi amna alal ju ci nek ñang koy investir ci wakala ci yenn bunuk islami banque islamique yi fi nek la cey jur fim tol ni taxna tax na li ñuy tuddee ndonga daara yi lu upp ci ñaar fukk jundu ndonga daara seen walum fond waqf monétaire bi ni assurer na leen ko ci atum 2023 bii te mi ngi wéy nii te bëgg nañ koo yokkaat lu mat ci ndey daara juróom-ñaar fukki ndey daara waqf boobu noonu moo yore seen lépp ba nga xam ne waqf boobu noonu lépp lu jëm ci ndox ci àll bi ak ci loo xamante ne ni ñi nga xam ne jotewuñ ñu former leen jox leen alal pour ñu mën a liggéey wax waqf monétaire boobu moo ko tax a jóg ba nga xam ne autorité boo demee ci www point waqf tiret sénégal point com moom dafa def benn sunduk boo xam ne li tabarron la képp ku bëgg a rek def lu baax rek ci orange mu ne ci weev ci lépp ci daaru musi si jumaa ji nii mën nañ ko fee def ci ay projet alwafa mën naa taxawal sunduk waqf naqdi boo xamante ne danaan te lii moom ma ko tax tahwal. bu ko defee lépp lu ca meññee mu koy taxawal kon dañuy ragal waxtu wi comme mi ñi ñuy dab ñi yamalu ko fii rek wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرجف سرين عبد الله جهته في وقتان وام سلوين خمل ممغن باختي تمو جم تي والو وقف اك نيغا خمانتني نون نكو تخاولي سي سنغال اك ني دوخي خماني وقتان وي يتي وو غو خمانتني مبوك يتي وو نكو تخنا لاجي خونا بري باتام نخمان ان شاء الله نيو لاجي ريك xamane ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah professeur Amadou Ba moom la ñuy fas yéenee dalal ci waxtaan bi di professeur ci wàllu taekwondo xam naa ne incha allah moom la ñuy dalal bu suba muy waxtaanee naka la nit ki aaree boppam ba kenn du ko mën a gaañ incha allah xam kon dañuy jox kàddu gi Oustaz Ahmadou Mbaw su ko defee ci laat yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan bi xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne lii nga xam ne moom la sëriñ doon waxtaanee euh, am na document document boo xamante ne bind nañ ko mooy document bi ñu doon séddale ci jataay bi léegi document boobu noonu incha allah ku ko bëgg am tamit ci internet bi rek soo duggee ci waxtaan wi da ko fu fekk muy forma muy ci wàllu ci PDF maanaam écrit bi. niñ ko bindé ci en français ak waxtaan wi mom lañu bolé inshallah incha ko ci internet bi kon ku dugg ci waxtaan bi rek da nga fekk document bi mu nek foofu mu nek lu disponible fofu aw xamane version arab bi tamit kon version française bi amna version arab bi amna ñaar version yëpp kon inshallah ku dugg fofu rek da nga ko fekk bu soobee yàlla. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seigne abdullah Jaxate ñi ngi lay nuyu di la ziar ci turu muassasatu Wafa bi xuquqil iman di wax ne waxtaan wi am nañ ci lu kawe njot di ñaan yàlla mu fayal nu la yàlla guddal saw fan te yàggal la te wéral la kii da doon laaj ndax lu mel ni mu assasatul wafa mënees na koo jàppe waqf ah ndax su fekkoon ne danañ ko nangu yooyu fan lañ mën a jaar ba mu doon waqf waaw jërëjëf ci laaj boobu euh, mu assasatul wafa ku ne xam na ne moom wàllu wasaare xam-xam yee nit ñi ba pare di def ci loo xam ne ci wàllu social la mu ngi koy def ci loo xamante ne jaamu yàlla yi ku ci nekk da nga ciy def la nga mëne ak la nga jote mu koy jël di ko tasaat ci jaamu yàlla yi waaye mu assasatul ba mën naa taxawal ne que damaa am projet yi moom ci jëmmi mu assasa bi ci boppam moom mën na koo def waqf am statut waqf au lieu muy dem di am préfecture luñ koy jox reconnaître ko comme association waaye moom mu taxaw ne man dama bëgg a am reconnaissance waqf ne kat damay woo jullit ñi ñi taxawal jëm loo xam ne dañ koy jëmmal def ko wax ci bien wala ci lu mu munti doon buñ taxawoon rek ne tey képp koo xamante ne nii ci Daaru Musti nga aju dañoo bëgg ci turu Al Wafa am benn immeuble boo xam ne dañ koy am Dakar lépp lu fa sosoom tey jii nii ak li Al Wafa namm ci jaamu yàlla yi ci jotewut seen ginnaaw mu jariñ leen ci loolu mën naa nekk waqf képp koo xamante ne nii yaa ngi aju daaru bu si am ay société wala nekk actionnaire ci yenn si bu la neexee say action wala say part yi nga am ci société yi am na ci loo xam ne boo amoon fukki part mën ngaa jël benn ba wala ñaari wala juróomi daf ko waqf te bu boobaa bu bu tax bu amee reconnaissance boobu noonu ak statut boobu noonu dana ko yombal surtout reconnaissance d'utilité publique lépp lu mu amati ci bien du ci amati ay eh, droit d'enregistrement du ko ci fayati dañ koy tegg lépp loo xamante ne nii ci wàllu taxe laak yu demee noonu lu mën a nekk la loo xamante ne ci ay bien ci ay moomeel yoo xam ne la cay juddoo ci jullit yàlla yi moo ko mën la jëm. barakallahu mi day laaj ndax koo xam ne daa yor benn junni rek la yor ci misaal ndax mën na koo def ci alwaqf wala saraxe lañ koy mën a jàpp. xam nga nit ki moom bu jëlee ab julli junneem dem fekk ku yalwaan mu jox ko ko kooka junni ba. amaana jënd na ca suukar jënd na ca bis ba mu ko lekk ca lay jeex waaye nit junneem boobu noonu mën naa def waqafu boo xamante ne nii ba ba muy sàngoog suuf ba ilaa yow mi diine waqafu mën naa koo ne ci naka mooy li ñu fi moo mooy wal al waqfu naqdi mooy waqfu monétaire boobu li ko tax a jóg mooy ñëpp jotewuñ taxawal seeni i waqfu bopp waaye dañuy fexe ba nga xamante ne nii dajale taxawal ko def ko ci benn fond loola ñi mën koo investir la muy jur loola meññin ma di jariñ waaye capital ba dafay des di continuer di loolu ci boppam moom mooy njariñal wax moo tax ñaat téeméer juróom-benn téeméer moo tax foo wax monétaire public bi ma leen jox ci misaal ci autorité lim def ba nga xamante ne nii ci supermarché yi ci sur grande surface yi dafaa def ay ay box ni lii nii kat képp ku bëgg a participer ci wax da ngay gis ku def ku dakaar ku jënd ba pare mu jël ay weccatam dugal ci jël 10 000 am jël mil francs jël kooka ña ngi koy defal ay waqf lima wax ci couverture maladie eh, ndonga daara yi semi semi moy couverture maladie universelle moy lolu ngeen di deg dafa loko lëkkoo ak autorité ba nga xamantene ndonga daara yi neena len ñaar fukki jundu ndonga daara ci weccat yu sew sewaan yoyu nit ñi di def ñi ngi def waqf ta ba ciosan la ma ngay ma nga fay taxaw ba legi capital ba waye la ci jotta genn mom motax ñaar fukki ñu ndonga daara tay ji ni seen walu santé teggil nañ len ko walum sarax ci Sénégal dafa doy war sénégalais yi par jour ndakaaru gee rek nee nañ bis bu nekk ci ay weccat waxuñu billet de nit ñi ñi ngi saraxe lu mat cinquante mille dollars ci weer wi mi ngi mat 1 million 500 dollars 1 million 500 ci dollars kenn boo ko doon xawma damay bañ a jum ci ay chiffre xawma ñaata milliard laa ci barakallahu fik mbokk mi nee na lan moo dox diggante waqfu ak sadaxa jaariya ndax ñoom ñaar ñoo benn wala wala wute nañ am nañ wute waaw fu mooy sadaqa jaariya rek sadaqa jaariya loo xamante ne yajri sarayaana zamaan day wéy di continuer moo tax xadis ba bu nit ki dëddoo lépp a may taxaw ba mu des ñett yi yeneen tamit aw sadaqatin jaariya sadaqa jaariya mooy waqf mooy teen boo taxawal muy wéy jàkka ji leneen ak leneen ak luy wéy rek. jërëjëf mbokk mi muy laaj. ndax état bu Sénégal duggal na loxom bu baax ci waqfu wala dé waaw bu sànq maa ngi léral ci ñent xéet waqfu yu am néna am na lu ñu al waqfu la am moy waqfu public bo xamné état mo koy taxawal bopam mo koy saytul bopam mo koy jëmale ci néew du joole am na waqf bo xamné ku ne mën na ko taxawal waqfu sénégalais bu taxawal sa waqf état yonam nekku ci lu ne yow dala koy saytul yow mi nga xamné ya tek say charte lor rek la lay sambal mais du ñew teg loxoom ci sa waqf wala bëgg koo doxalee neneen. jërëjëf mbokk mi muy laaj ndax lu mel ni tuubaa ca kanam seen activité yooyu ñuy def mënees na ko jàppe muy waqf. muy laaj bu am solo Touba ca kanam mm, ñi ngi def ay jéego yu mag sax jëm ci wàllu waqf ñëw nañ dalal nañ leen ci wàll woowu ñu waxtaan ci am na naal yu bari yu ñu sumb. li ñuy def ci ay hôpitaux ci ay centre de santé ci lépp lu ñuy def alalu jullit ñi la ñuy jël di fexe ba koy def ci lu mën a jariñ loola sax di wéy di jariñe loolu mënees na koo jàppee wax léegi nag li ci des mooy bu ñu ko formalisé wul bàyyi ko noonu lépp mën a xew comme loolu jombul saxaaba yi jombul keneen ni jamono di doxe léegi nag boo ko buñ ko buñ fexee ba sàmm ko ba sécuriser ko loolu noonu ëllëg ku nar a ñëw kii ko yoon mooy taxaw ne déedéet lii ab waqf la dañ koy sàmmal ki ko fi defoon woykat ba day wax ni def njariñul ñëpp di leen laafaale doo ko saxoo fenn bañaf laafaale mbokk mi muy laaj mu ne ndax nit mën naa jaf boppam waqf waa nit moom <laughs> du alal jum moom nit moomul boppam ndax am na loo xam ne sañu ko ci boppam ndax yàlla da koo sàkk lim mën def mooy ak xereñte bu amul alal maa ngi joxe fii sànq travaux yaa ngi danañ soxla suuf danañ soxla bale danañ soxla génnay xeer danañ soxla yabi xeer ci oto yàlla may na ko kàttan may na ko loola loolu moom wax waxtoom woowoo noona bu nee bisub àjjuma fu mu jote sama kàttan gii dama koy jox jumaay daaru wala sama doole ji dama koy jox jumaay daaru mu saxal ko wala mu ne kat weer wi wala ñaari weer yi loolu boobaa wax waqf lay doon na ko bañ a def benn yoon rek mais loolu moom mën <laughs> na ko def waqf jërëjëf kon daam na na kon daal mel ni am daayira boo xam ne dañu ne woon ñoom ajjuma ju jot ñoom ñuy ñëw bale jumaa ji lal tapi def ko waqf loolu daal kon kon nag lu am solo ngi noonu loolu am na solo kii nee na ndax ak jur des na ko jàppee waqf xam nga jur loo xamante ne nii dafa am àpp ci faatu waaye maa ngi koy joxe sànq misaal ci bëy xam nga bëy dana am suñ bëy yi local yi waaye léegi am na bëy yuy jóge fu mel ne Soudan yoo xamante ni at mi mën na cee jur ñeenti yoon tey damaa am sama euh, ñaari bëy benn bi góor benn bu jigéen ma ne kat dama koo bëgg a def fa nan laa koy defee waqf damay dem fekk koo xamante ne nii bu ma ko ci jàppalee mu yar ko bëy bi fii at mën naa jur ñeent bëy yu jigéen bu juree moom mu jël ñeentam jox ma la ma ko joxoon ma jël ko joxaat ko keneen gis nga loolu buy wër xam nga sànq damay wax ci xasaa isu waqf ci melo yu waqf loo xam ne day continuer day wéy. loolu mën naa koo def ba ñaari bëy yooyu mën naa wër Daaru Musti projet boobu noonu tey Al Wafa mën na koo am tey lu ti téeméeri bëy wala mu am projet boobu noonu nit képp koo xam ne ci tund wii ñu fi ndóol lañ waaye nag day laaj saytu de suñu mbokk yi dañoo xaw kii lool da nga ko jox nit ki xëy suba ne la daa réer wala daa nangam laaj na ak taxaw mais loolu tànk mi ñu wéy rek di jariñ loolu noonu day nekk waqf am na mbokk ma laajoon mu ni comme sëriñ daara yi ñoom seen dongo yi ñoom nu ñuy def ba bénéfice ci fu ci bu ñu amee tawat wala ñu am ak wéradi waaw xam nga loolu li ci njëkk rek mooy projet waqfu daara moderne projet la boo xam ne vingt millions de dollars lañ ko tabaxee seize étages la ca centre ville Dakar liñ ci xalaat ci li muy génne li muy kii lu am solo la loo xamante ne lépp ci daara yi la nar a ma joxe fii ci exemple tund wii nii ci daaru Musi li fi nekk ci ay daara. tey bu am ñoo xamante ne nii taxawoon nañ jël lenn ci seen alal booloo jël benn immeuble ne dañ koy def waqf lépp lu ci kii at mu jot bu dee fukki million la ñaar fukki million la téeméeri million la ñeneen def ko loolu dañ dem ba nga xam ne tund wi lépp lu fi nekk ci daara ay nit dañ taxawal ay waqf yoo xam ne dina leen taxaw ci wàllum paj ci sëriñ ci donga yi ku ne xam na ne sëriñ si jafe-jafe lañ am ci dundal leen ci taxawu seen paj looloo tax autorité di waqf fonds waqf monétaire bii mu taxawal ci fii may waxee yow nii ci 2023 bii lañ ko tàmbali ba léegi ñaar fukki junni yu ndonga daara ay carte yu ñu leen jox képp ko am sëriñ bu am sa donga bu tawat hôpital boo dem doo faju oh, déggal doo fay da nga faju te loolu noonu waqf moom moo ko def ci ñoo xam ne ñaar téeméer ñetti téeméer loolu laay tudde fonds waqf monétaire moo dem ba jur loola ndax fond ba dañ koo taxawal ak gafaga la la cay ñi koy investir la cay génne di ko def waqf waaye capital ba di fa des di judd di màgg di gën a dem jërëjëf mbokk mi nee na ndax al imam Malik defoon na dara ci waqf ah loolu nag de wax dëgg yàlla moom taxawuma ci moom loolu moom taxawuma ci en tout cas li wér mooy ne kenn ci saxaaba yi wax na ko nee na amul kenn ci saxaaba yi sallallahu alayhi wasallam ku deful waqf kenn ci saxaaba yi bàyyiwul kenn te loolu noonu lu yéeme la moo tax Malik demoon bay jaaxle ci waqfa ya saxaaba yi defoon mais jëmmi maalik moom ndax waqfa mu am na taxaw na wala déet loolu wax dëgg yàlla moom dese naa ko mbokk mi doon laaj lan moo dox diggante waqfu ak ma waa xam nga ci loolu ci njëlbeenu waxtaan wi ci laay waxee ne tey Maroc xabus la ñuy wax ñee wakif ñee waqaf waaye ñun ci suñ Sénégal am na jëf yu bëri ñuy wax loo yu ñuy jëf loo xamante ne ni waqf la ci jëfin ci déggin ci lépp dañ ko koo tuddewul waaye mi ngi mel ne tey jii comme daayira boobu nga wax ne tey bu fi taxawoon ñu ne fii nii chaque dimanche wala chaque samedi ñooy waaye xeer du fi nekk dara lépp lu euh, manœuvre lu fi nekk rek ñoom ñoo koy taxaw bu boobaa waqf la te loolu xëdd ma nga koy tudde ak loo ko mën a xalaate rek ci luy jariñ nit ñi rek nit ki di ko def muy wéy waaye bañ koo def benn yoon taxaw ndax bu ko defee benn yoon taxaw moom duñ ko duñ ko duñ ko jàppe wax waaye na koy def di ko tàmmal même bu ko doon def benn yoon ci at mu ne wala ñaari yoon ñetti yoon jërëjëf jazakallah xeer يا خير طيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد